ndeke ndeke ndeke fu may dóoree dinaa gis jaw jaw fara sama wet mu yor marto kii yor bere ndeke yow yaa yor raas kuul bi ban glace rek ñun ñun dox mbok rek. mbokk rek. ñun xam nga ne ñun alalu àdduna ñoruñu. ñun ñun nga yëg ñu rek. Tassane Fall daf ñoo yëg. barki yéen a di moo tax moo tax bu wootee dañuy bàyyi lépp luñ jàpp. ah ñëw Kasoor laa demoon tey suba. bilaahi bàyyi lépp Kasoor. Kasoor voyage. Kasoor du voyage. waxuma ko de. bàyyi lépp ñëw ci bisu Assane Fall bi. mais bis bi mais barke sëñ Bamba liñ fi añ tey. sa diggante ak am mais tamit ah tournée bay miir nii fi mu ne nii añi fii tey ay ginaar yu am yaram yoo xam te dal. waaw xoolal waaw ndeysaan. mais mais sa diggante ak Assane Fall sa diggante sa diggante ak Assane Fall ñii xam naa ne doo leen gaaw. waaw bu baax bu baax. ay ah, imbécile lañu ñi dañ ma bëgg a toroxal du ma ko nangu waa ndeysaan ah nee naa la wax dëgg yàlla nit nit kenn du ko lekk nit da nga yëg rek mu yëg la mm-hmm. barki Seydina Mohamed Assane Fall euh, moom euh, yàlla dafa dogal moom nday ji seex la mm-hmm. njaaxaanaay la tëddee jour journaliste yi mbër yi xam nga ñëpp la jël njaboote leen. man dama ne sànq Assane Fall dafa nekk ndawalu guddi ku téye rek da ngay jàpp ne a doo nga jàpp. waaw loolu loolu magum guddi la te en même temps ku ko mu la yàlla def. loolu jaww fara bi ma la ko léegi Assane Fall ah kon ni may def loolu lay def. ak ni muy def kii noonu la may def. bam day def bam ba daf may def moom def kat la yooyu lay te wax dëgg yàlla arme silencieuse la. xamal si suuf rek lay xeex bu da lay ba gaañu ba ba yàqu mu demaat jamaat keneen lu neex xam nit ku mel noonu xam nga Sénégal ñoo ko soxla société bi ñoo ko soxla wax dëgg yàlla tamit jamaïcain ñëw def lu rafet tuddee ko drapeau bi xam mu nekk affaire bu naay sa naay sa naay eh dama ne Assane Fall neexu leenam Assane Fall ni ko yàlla def ku ma neexul yaa réer asan lanu wax moo fi nekkal mag ñi nekkal ndaw ñi lii la yàlla def ku bañ ci dolox métti ku ci sar xool ma ne ko eh dogal di nga sonn mi di la ma muy tàccu leen te mu neex te neex te randax te tax sa guróon noon ndox ànd ak sabar ku ci tàccu sa loxo du métti ma ne xam eh Assane Fall yaay 4-4 ci kaw tali. nga gën koo bees yaay a 4 ci kaw tali. ma ne ci kaw tali ku ko dàq daw mu gën koo bees kenn mooy 4-4 ci kaw tali. eh ana ñu ko bëgg. ma oh là là oh là là waaye alburi bi doon fenn ñebe cukuli cukuli cukuli jaagaan jaajaan sire sire jaata jaay sori alburi tey nag